tey suñu rubrique royuwaay ni ñu ko waxee sànq ak Fatou Diouf Faye ñu war a waxtaanee Serigne Abdoul Aziz Seck euh, Fatou Diouf damay lay daal di bàyyi nga daal di wéyal rek ak say gan. waaw Fabel euh, ni nga ko waxee woon léegi nag euh, ñu war a dugg si biir waxtaan bi ginnaaw bañ nuyoot suñu invité yi ñu nekkoon ci plateau bi avant am na ku ci ñëw joindre donc di suñu ah. Assane Niang di ko nuyu waaw. lay fay bu baax a baax. lay mm. Fatou Diouf. Mm-hmm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo bi Baye sheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général di Thiénaba di ko wàcce ci njaboot bi yëpp tabarakallahu di nuyu xalifa bu tàdd ba Serigne Bakary mu Cheikh Ahmed Bamba Niang suñu waajur euh, di jiital ci nuyoo bi Serigne Cheikh Amadou Seck mu Baye Abdoul Aziz euh, ndax dana wax ne waral coow li ñu kan moo waral coow li ñu ne fan mooy mbuur mooy Thiénaba mbuur ginnaaw raay waral Serigne Cheikhou Seck mu Baye Abdoul Aziz d'accord euh, Fatou Diouf. waaw nuyoo na dañuy daal di bàyyi ki nga xamante ne nag mooy Serigne Alioune Ndoye. waaw mu ubbi waxtaan bi. Mhm. Mhm. ayca. salaamu ala nooy la si jaa abil huda salaamun ala nooy النور الذي جاء بالهدى ينتهى الأمد سلام على البدر المسمى محمدا كان أبانا ولا يأش من خرب وإن بهد المدى كان ينتهى محمد محمد المصطفى قد استحكمت في أدله لو قد أسدا فعسرا فإني أنصب في أراقه ينتال أمدو جرائمنا أيوة يلا تمحى بجاي محمد ينتال أمدو إذا سفي المخبوب بجاس المبهرجو muy bien fa sëñ Aliou donc euh, ñuy dung si waxtaan bi comme ni ñu ko waxee woon di waxtaanee ci sëñ Abdou Aziz Seck euh, di gàmm boo xamante ne ñu ngi koy amal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci euh, weeru janvier bi fale ca quartier Oncad ci Mbour ki ko initié gàmm boobu nag di doomam di Serigne Cheikh Amadou Seck donc donc ñu bëggoon xam ci Serigne Abdou Aziz Seck kan. ki nga xamante ne ñu koy tàmbalee laaj bi euh, kii di euh, Cheikh Ibrahima Seck voilà. ñu ngi yeesalaat sunu nuyoo di nuyu réew mi yëpp jiital ci sunu xalif général sunu wayjur mm-hmm. euh, Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di nuyu rakkam Serigne Mokhtar Seck mm-hmm. di ko nuyu di ko ziyaara bu baax di nuyu it Serigne Abdourahim Seck mi nga xam ne mooy xalifa Momar Talla bokk ak euh, wenn way jur Serigne Abdoul Aziz Seck mi ñuy waxtaan tey di nuyu xadara ba la ñu jóge muy Canaba Kajoor ñu ngi fa bàyyi ko ci Serigne Talla Abdoul Aziz mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdoul Aziz di magi Serigne Cheikhu Amadou mii woote tey Mbuur tabaarakallaahu nu bokk ak ñoom benn way jur Serigne Abdoul Aziz ñu ñëw ci ndigalal Serigne Talla Abdoul Aziz mu jox ndigalal Serigne Cheikhu mu taxaw ca Mbuur di liggéey liggéey boobu di ci fàttaliku nag jëmm ju baax ju màgg joo xam ni danañ ci waxtaan ci lu gàtt rek nag tabaarakallaahu nekk boroom xam-xam bu mag tabaarakallaahu nekk yarkat bu màgg nekk aarif billah nekk koo xam ni mën nañu doomi waliyu la ndax doy na sëkk ñu ne Cheikh Thiénaba Momar Talla Seck mooy baayam waaye doy na sëkk ñu ne maamam almujahid maam Ahmadou Ndaak Seck mooy mooy maamam kon ci famille diine bu màgg bu tedd bu kenn umpalewul ci biir réew mi ci la sëriñ Abdoul Aziz Seck moomu bokk muy jëmm joo xam ni li ñuy fàttaliku bari na ci moom 1835 ci la euh, gane jamono Canaba Kajoor tabaarakalaaw ci kanam woy juróom wu tedd maamu Martaala Seck ñu gën koo xam ci sëriñ Canaba wala nga ni góor gu mat wala Mouhamadou Mourtada Seck tur ya bari na lool tabaarakalaahu ak sunu ak maamam sunu maam ju baax di woy juróom wu jigéen di soxna Asta Ndiaye maam Asta Ndiaye jigéen la joo xam ne la ibnu baabal alawi tagge woon yaaya Aïcha ma nga xam ne mooy yaayu Cheikhuna Tidiane Aïsatu Tahiratul Azani muy ñoŋe gu mu ñoŋe wu sell gu mu sell mën a jaamu yàlla bëgg yàlla loolu yàlla da koo defoon soxna maam Asta Ndiaye mi moo tax damay wax ne réew mi nañuy bàyyi xel bu baax soxna yu baax yooyu ku mel ni maam jaara bu sa tabarakallahu ku mel ni maam Fawadu Wele ku mel ni soxna Asta Jànqa ku mel ni soxna Kumba Ndooy waaye ku mel ni soxna Ndaak Faal mi nga xam ni moo jur maam Ahmadou Ndaak tabaarakallaahu mi nga xam ni mooy maami Sëriñ Abdul Aziz mi waaye ku mel ni soxna Amina Mbuub mi nga xam ni mooy woy jur maam Momar Taale mi jur Sëriñ Abdul Aziz mi waaye ku mel ni soxna Asta Njaay mi tabaarakallaahu doon jigéen ju baax Baay Ousseynou Xaar sunu woy jur la woon nekkoon na xalif général di Canaba bi mu nelawee sax la ko Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane mi wuutu nee na maa daan xambal euh, sa maam Asta Ndiaye nee na kenn xamu ko woon ci yéen ndax ak mbaaxam ak lewetam waaye am war maam bëgg gum bëgg diine waaye fonk gum fonkoon maam góor gu mag tabaarakallaahu nee na nee na man ma ko daan xambalu taal maa ko xam da ci daan nett lu bari mm-hmm. nee na su daan toggal maam góor gu mag ba ñam yu pare mu war ko ko yóbbul nee na day daal di jël buntu ëtt bi daal di génn mel ni ku jëm tool fekk na jël nag paan taaj paan gi wutub sér dugal ci biir lal ko ci daal di jël bool bi mu ko defalee ñam wi daal di koy muur ba mu kii mu mel ni ko jëm tool su demee ba ca ginnaaw ba làqu jaar ci buntu poot bi dugg ci wanagu maam góor gu mag radiallahu anhu daal di koy taajal ñam wi góor gu mag toog ci mboolam bu mu mu dugg waaj ba jekk dellu si waat tabarakallahu noonu la soxna soosu meloon kon wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi isni rabbi dañuy wax ni soo bëggee am gàncax bu baax mm. eh, di ko ci tool bu baax tool bu baax bi jur Sëriñ Abdul Aziz Seck mooy maam Mor Talla Seck waaye mooy soxna Assa Ndiaye 1835 la ganee jamono 1980 1935 la ganee jamono 1996 le 20 juin ci la génn àdduna xam nga ne soxna si boo xoolee danga naan loolu fan yu guddul waaye nag ak a barkeel tabaarakalaw ci jëfam yu màgg ci luñ ko mën a roye ci ci ci ci ci ci tarixa bi tabaarakallaahu Euh, kon 61 euh, euh, at rek la am juróom benn fukki at ak ñaar yaakaar naa ni sori soriwu ko sëñ Abdou Aziz nag ñu tuddee ko mm, sëñ Abdou Aziz Dabaax borom Libris xam nga mag ñi dañ daan dabu turu tedd wu màgg ndax day jeexital ci nit nag njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna min xaqil walidi ala waladihi an yuxsina ismahu wa an yusawijahu isa balax wa an yuallimahu alkitabata ñett yëpp mag ñi dañ ko daan fonk ndax yowmal qiyaam nee na da gis ku ñu xisaab ay mbiram càmbar ko léppam baax mu war a dugg aljanna bay dem rek am ku ko dabtee ni yàlla kii kat mooy sama jur waaye tudde moo woon turu baax kii kat mooy sama waajur jàngalu ma woon sama diina waaye nag tabaarakallaahu ba ma waree dem kër toppatoo moo woon ci dara kon mag ñi dañ daan tur wu baax moo tax Abdul Aziz dab baax borom Libris sunu jur bu baax wala sunu maam ju baax ji maam Abdul Aziz si ku marqué Sénégal tabaarakallaahu moom it moom lañ ko tuddee sëñ Abdou Aziz Seck mi it moom lañ tudde sëñ Abdou euh, Aziz Dabakh borom Libris Abdou Aziz Dabakh borom Libris da doon nitu yàlla boo xam ne Libris ab téere la bu mu liggéey ci fatxul akbar bu ko yàlla defoon njàngam bëriwul woon mi ngi tolloon sabi xisma waaye demoon na ba euh, mufassiruuna yi ak euh, muhaddisuuna yi dégg nga yëg ak fuqahaa yi dañ daan dikk ci moom di leerlu masala ci moom biñ ko laajee noo ko xamee dañu booy jàng alxuraan yàlla dafay génn benn leer cokkooru leer bu mel ni buum ma di ko xool su dogee rek ma xam ni yow mi li nga wax bokkul ci alxuraan wala bokkul ci xaddis yonente bi kon xam nga ne kooku nitu yàlla la woon amoon na fatxul akbar da baax dafa daan sëbëj loolu ñuy wax euh, euh, uude yi def fobu der def ci nen na ba mu nooy nepp bañ mën koo jëfandikoo noonu la daan def moo moo tudd da baax Sénégal transformé ko ci góor gu baax googu maam Abdoul si Sy ba ne daa baax ndax a jëfam ju baax moom kon sëñ Abdoul Aziz Seck ci tur la ko baayam tànnal muy Abdoul Aziz da baax boroom boroom boroom Libris kon moom la ko sang bi tudde mhm. waaye nag ñu mën a xool jàngat yu bari ci moom ci ay jikko incha allah bu nu agsiwaatee bu soobee yàlla. jërëjëf Ibrahima Seck fii euh, Assane mën na am na Thiénaba Kajoor. mel ni ceen bay dañoo bari nag bu nekk ak fan la nekk mën nañ cee xam dara. macha allah ceen bari na lool. Euh, ceen Kajoor am na. Hmm. wala sang bu tedd bee jógee. Hmm. waajuram bu tedd dëkk fa euh, Baye Abdoul Aziz Seck hmm. moom Momar Talla mu Omari Ndak. Euh, ceen ba Gossas am na. tabaarakallaahu fa la Baye Assane Seck nekk ak njaboot ga. cene ba Bawol am na fa la Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck nekk cene ba xaabaan maa ngi koy dégg macha allah ak yeneen cene ba yi ci topp. macha allah canaba yooyu yëpp canaba mbuurit am na sang bu tedd ba bàyyi suñu seexu meer nekk fa fekk fekk farakam mam mooma taal sek mu bàyyi Usmaan ak soxna Assa Balla Seck seen mag tabarakallahu mu wett si leen foofu ci canaba mbuur tabarakallahu di fa taxawal bis bu am solo ci la 27 bii di ñëw. Kajoor suñu Abdou Aziz ca ca Nabou Kadior taxawaayam mooy la xam ni moom la maamam doon dund muy àll ba àll ba allahu akbar loolu la bàyyi Abdou Aziz doon taxawee foofee ca ca Nabou Kadior doon ko dund mooy tool yi daara ji jumaa ja macha allah loolu fa doon dund Baye Abdou Aziz nag nekkoon góor goo xam ni mag ñi wax nañ ni ku service la woon tabaarkàllah set lool sall waaye ku bari woon xam-xam xam la waaye ku amoon orma la ci mag ñi waxoon nañ ni dafa nëbbu woon ci saayir fees dell ak baatin moom Baye Abdoul Aziz euh, Baye Abdoul Aziz wax nañ ni dafa jëndoon lépp léppam da ko jël jëndoon ko ak taalibe ngir orma ci karam magam yu tàddiya Baye Alfa Mouhamadul Seck euh, Baye Abdoul Aziz nekk ku xamante ni tamit ku xamoon adduna la wax nañ da daa dox euh, bari na réew waaye du la si teg tànkam euh, dafa jëflante ak ay nit wax na ni sax am na nasaraan yoo xam ne Baye Abdoul Aziz tuubal na leen dugal leen ci diine l'islam Baye Abdoul Aziz ñun lépp daf ko daxañoon wàcc ci kanam mag ña ci kanam magam ya yu tedd ya bàyyil fa Mouhamadul Seck Seydina Ibrahima Seck ak njaboot gi loolee nag liggéey boobu mooy feeñ tey feeñ ga muy feeñ moo tax doom ju tedd ji Serigne Cheikh Amadou jugee Thiénaba yëmbal ñëw Thiénaba mbuur wéetali si rakkam yooyu comme ni ñu ko waxee woon rek tabaarakallaahu waaye dafa ñëw ñëw fa ak dal di ko teey di ko dal di ko yaatu waaye di ko ràññee waaye bu fa ñëwoon rek toog fàtte nit wala mu fàtte boppam kon yaraange day am waaye bëtëb bi daf ko teg fa ko mag ña tegoon fan la ko mag ña tegoon mooy foko ko baayam tegoon baay Abdul Aziz mm. muy àll àll ba allahu akbar foofee la ko sëriñ Cheikh Amadou teg euh, tabarkal yëbul foofu cana ba soomaan boo fa demee sëriñ Cheikhu def na fa daara bal fa ay tool taxawal fa juma macha allahu di ko dund ak waa cana ba soomaan ak taalibe yi yëpp kon dañuy wax ni wat ca watit wa sëriñ Cheikhu fa bàyyam tegoon tànkam teg na fa tànkam donc koy ñaanal euh, fan gudd waa ànd ak wér ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. loolu moo nekkoon li nga xam ni mm-hmm. moom lay dabale ci ba ci kanam incha allah incha allah mm-hmm. sëñ Assane ah, ki Aliou mu bàyyi la nga yëkkati ilallahi askuba ilallahi askuba sa xalbi wa wajdoho incha allah muhammad muhammad rasulillahi لبعد حبيب لمشى قد بعده سنب يونان منايا أيواي من الدارين لقيا وحده يده نتاه صبري أن هو بحده كدما من شيخنا التجاني محمد للأهداء سنب يونان مقالا وحجة مبين الهدى لسالكين مهجة يا رسول الله وأصده من يمسي على الأرض لهجة بختم سلك نبيون بهجة كينو waxtaane maamam waxtaara rabbul ibaadi baay abdul aziz maamam waxtaara rabbul ibaadi maasa ahu fil ibaadi baay abdu maamam lam jële samba saajo daf ko yeyo mooy zakiyu baay abdul aziz maamam wa nooruhu xatta jalla maam amari ndaag lislaam gërëm na sa diine canaba mooy peeyu diine julleeg si kar xam sa diine lislaam ju sell te tiire Fatou Diop demal canaba zakiyu su ngeen xamul ku mu doon sekk zaka kulla sayin ahra shariqa fi diine kii nuy waxtaane bay abdu maama mooy sujaahu sujaahu yaa di manaa manaanu yaa di taqiyu sëriñ seexu samaam ku naan manaanu xaniinu maam umar indaa sekk nangul na leen seenub coona ma sekk sekk zakiyu sëriñ seexu seen maam dëkkam ba xaryataxoo daaru nabi diineem ja sax na mooy zakiyu ay waay maamis loo maamis loo fi samaanin ku mel ni maamis sëriñ seexu dootu fi am yaay zakiyu kon gaal gaa ngi nii soobu leen ku soobu naani jinaana gaalug mam mari ndaak sekk gi am nay bañ sirku ak bidaa loolu lay bañ sellal na diina sa kiiyu canaba day peeyu diine ku moy nu yar la li diine looloo fa saxte moo di